salaamaaleykum image bi bi ma ko seetaanee ci suba dafa ma jàngal lu bëree bëree bëri damaa jàngal lu bëree bëree gis nga dossier ndaw si nekk dossier caaxaan tappale comme li ma ko yàgg waxee gis ngeen kii lu mu nar a indi jéye gu mu nar indi Sénégal benn ka xamoon wala bokk yéen ñi nga xamante ne yéen a koy jàppale si ay fenam ben xamul jéye ji mu nar andi yeen ni du ngeen si muccu barka alquranu karim du ngeen si mu yagga na man di lañ ko wax dossier bii dossier bi dossier ndaw si lu mu nar andi senegal mu lañ kaa xam jéye ja xamantene billahi yeen do doo ci si yeen ni ka kaa yeen ni top ci si top ci dossier bobu tay xol leen li tay